Thank you. kon mënees na koo bàyyi fexe rek jublu ci lu baax li ñu leen andil di seen supermarché Elidia waaw waaw seen supermarché Elidia mi ngi fii ci diwaanu a fas yéene dox ci seen ay bëgg-bëgg lépp lalu ci ay produits 100 pour cent sénégalais. Elidia euh, structure la boo xamante ne day promouvoir le consommer local maanaam. ñëpp ñi fi ñi fi daan seen doole ci wàllu commerce ñëpp ñu fi daan doole ci production locale dañuy jéem a fasal seeni i produits dañuy jéem a jaay seen produit au niveau euh, d'un supermarché qui s'appelle Elitia Bay Dunte ci bu taaxu bi te lool da ngeen fi fekk lépp lu ngeen soxla ci seen biiru waañ mu di luy tàng mbaa luy sedd da ngeen fi amee viande jën ay fruits de mer ay produits horticoles lépp sokkee ko fii ci biir réew mi. waaw supermarché bi euh, programme bu ñu am c'est vraiment euh, un maillage national. du ñu bëgg c'est que Elidia tu une entreprise sénégalaise 100 pour cent sénégalaise boo xamante ni euh, tey nii c'est euh, dañ ko war a euh, développer partout dans le territoire dans les coins les plus reculés dañu bugg chaque sénégalais mu am Elidia mooy donc un supermarché pour ñu may aussi béykat yi pêcheurs yi ñooñu ñëpp pour ñu mun a am seen produit de qualité ñu accompagner aussi ñu professionnel seen activité pour ñu mun a dem exposer seen projet ci seen produit ci Elidia partout dans le Sénégal loolu mooy vraiment euh, notre projet loolu mooy suñu vision et c'est ce qu'on a envie de faire incha allah. mbëbëtu Elidia supermarché moo di. wéy ci consommation locale. Elidia supermarché la de grande distribution donc euh, benn magasin bu tolloon 1200 mètres carrés boo xamante ni dañu bëgg def la promotion du consommé local bay dundee euh, Elidia nag koo xamante ni ku nekkoon à l'origine mooy Abdoulaye Elimane Dia qu'on euh, surnomme Kaladio euh, moo nekk effectivement suñu fondateur euh, qui nous a quitté il y a temps paix a son âme si projet boobu si rêve boobu si loolu lañ nekk et c'est loolu moo loolu moo ñu fii tey pour fêter inauguration ouverture magasin bu Elidia bu Suisse boo xamante ni sénégalais yëpp ñoo ko moom. supermarché Elidia ubbi ca diwaanu Touba baaxee nañu leen ko it fii ci Ndakaaru. Elidia concept la boo xamante c'est continu. du foire bi donc moo ñu intéressé donc nu c' est dans euh, le cadre pérenne cest à dañuy continuer am nañ yeneen projet yoo xamante dañ ci tegu par exemple CICES moo ngi nii taxaw na euh, même après foire day continuer am nañ magasin Kër Massar d' ailleurs kii moo fa nekk comme directeur am nañ magasin bu ñuy waajee ubbi aussi au niveau de Mamel dans ce mois de décembre donc au total ci mois de décembre dañuy am euh, trois magasins yi nekk fii au niveau de Dakar Euh, dès à présent ça fait plus de six mois am nañ magasin déjà bu toll ni bu toll ni surface bi bi nekk Touba boo xamante c'est déjà opérationnel donc clients yi nekk Touba xam nañ bu baax ci li ñuy wax et foofu aussi euh, produit yi xamante ñoo ñoo ñoom ñoo nekk ici au Sénégal yooyu lañuy ñuy gën a fësal euh, loolu nag li ma ciy wax lu bëri mais ñëpp xam nañ ni képp kuy liggéey ci grande distribution képp ku bëgg a ubbi supermarché bu toll ni mille mètres carrés wala cinq cent mètres carrés xam nga ni bu baax xaalis rek moo ci mën a dugg investissement la investissement boo xamante ne euh, nekkul lu ndaw te xalaat la boo xamante dafa yàgg PDG bi moo ko daan xalaat muy Abdoulaye euh, donc euh, investissement la boo xamante ne c'est pas aussi médiocre dafa nekk investissement bu ngandi mais loolu du investissement donc lañ ciy xool mais liñ ciy xool le producteur sénégalais mais le fait aussi on crée de l'emploi lu fekk aussi producteur sénégalais boo xam xamante fépp fi nga mën ta nekk nga mën a fësal say produit ba tax na yow di nga mën a yokk sa sa taxawaay ci li ngay defaree produit di nga gën a yokk sa critère di nga gën a yokk ci personnel bi ngay bokkal ak liggéey loolu ça crée de l'emploi loolu ay objectif principal bi après ya y a du business oui il y le commerce et tout mais loolu lañ gën a fësal d'abord Elidia ci branche yu bari lay yëngu bu ci mel ni agro business transformation logistique transit ak grande distribution sunu ay ndaw ngeen fiy fekk ñuy woy ci seen ay ndigal ni ngeen di duggee ba ni ngeen di génnee kon nag gaaw leen gaaw liggéey ba tàmbali na. mooy jaamu yàlla bi te yonent yëpp yàlla daf leen tuddee Abdoulaye ba ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa yàlla oo na ko ci alxuraan néew ko annahu lamma qaama abdullahi baayam abdullahi la tudd waaye moom foofu yàlla moo ko tuddee abdullahi te mooy jaamu yàlla mu doon maanaam ku daan ku ku réeroon diggante mag yàlla la di ko consacré temps yëpp yi nga xam ne euh, bokk nag liggéey te liggéey ci boppam jaamu yàlla elimaan njiit la ñu nekkoon ñëpp ñoo leen di jiital ba ñu fi jógee fa mu dëkk kenn jiitewu ko fa mu juddoo kenn jiitewu ko fa mu liggéey kenn jiitewu ko université bi mu fa nekk liggéey kenn jiitewu ko jaabi en réalité santu jaam mi ngi Sénégal mais fii duñu jàngal suñu histoire en réalité cosaanu jaa du jaa za sedd a ah. seen maam di ko ñëw za alyaman moom moo fondé le royaume du Sonrail avant que royaume boobu di wëlbatiku di nekk empire du Sonrail bi nga xamee ne nag ñooñu sant za dañoo ñëw Fuuta te tukulóor mënuñoo wax zedd jë la wax Zakaria ñu ne Jakaria zaalikal kitaaw ñu ne jaalikal kitaaw donc za ñu ne ja waaye ñoom seen cosaan seen maam yi ñu nga jógee ci alyamaan kon nag ñett yooyu wane ne ki mu doon man mi nga xam ne partenariat dox na sama diggante ak moom muy ay milliards yoo xam ne yu bëri la ñi ngay tabax ay cité ñi ngay defar ay yu bëree bëri fenn fu waaye xam naa ne moom ak ñu fi bàyyi ñu jub lañ ñu wér ñu wóor lañ te moo tax aw ma benn jaaxale ci ne danañu dem ca kanam parce que Omar Seck mii mu bàyyi fi ci loxoom euh, doon mbër moo tax mu génn ci loxo tubaab yi waaye tubaab yi dañ ko jëloon jox ko ay centrale atomique mu di ko gérer kooku nag bu fa bàyyee loola indi ko fii la tax mu mën a génn ci loxo tubaab yi loolu ay qualité Ablaye Diallo Ablaye jóge na fi amul benn bés boo xam ne liggéeyam bi mu fi bàyyi woon amul lenn loo xam ne mos na ci taxaw une minute ñu ne dafay taxaw tuuti ndax Ablaye jógee na fi dafa mel ni moom dafa xam ne mi ngi fiy jógee muy transférer ay ay compétence am ñëpp ba nga xam ne bu fi jógee woon dara du taxaw te bu fi jógee dara taxawul kon nag ci turu diine ji ci turu tarixa bi ci turu góor ñi nga xam ne dañuy liggéey ñi ngi ñaan yàlla yërëm ko ma bëgg aussi ñun ñëpp ñu jàngal ko benn faatiha parce que am na loo xam ne lii ku mel ni yow su ko ko seedalee doomu aadama kooku war na sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa dëgg la nee nañu lépp lu ñu way dafa war a nekk loo xam ne di suba bu ñu ko gëstoo doomu aadama war na si jël njëriñ gis si njëriñ waaye ku mel ni yow bokk na si ñi nga xam ne ñoo ñuy ñaax ci di xam suñu responsabilité boobu li nga wax macha allah dëgg la mu nekk loo xam ne lii am na lu mu def si man bu lu bare bi ñuy ñëw Rossori di daje këru diine yi nekk ci biir Fouta yëpp foyer coranique yi nekk ci biir Fouta yëpp ngeen ma baaba il faut nga ñëw nga teewee ko parce que ñu ñu soxla ñu fekk si ñu si yoon bi moo mooy la jeunesse te jeunesse bi bëgg nañ la ma xam ne artiste bi am na benn responsabilité bu raw taxaw rek di bëggal doomu aadama yi bi ma ñëwee itam rëccu ma ko parce que bi ma fa jógee gis naa lu mu def ci man dëgëral sama diggante ak këru diine yi nekk biir ak ci biir yëpp rawatina ak yow nag mi nga xam ne référence la allah maa ngi gërëm di la sant bandiraɓe mi mbino on nde ablay yani nde ko ablay yimi hoore mum mi wiya kadi inchallahu rabbi ablay ko jogori yimde hoore mum kadi yettaki tawa que o fewni ɗum ha feewi te inchallahu rabbi ma yimɓe ɓe jiya ɗum elija oɗo noon ko seeɗa hen ko ñaganade allah ɓe ɓe ganduɗa hoorema kamɓe goni ɓesgu ablay fuɗɗorade suudu makko jerebi sako e yu makko nene ba e ɓesgu makko e ne kadi alassane waare en e heddiɓe e mamoudou dia mo ko bandiri bandiko kami jeeɗa e kala ko neɗɗo dañi e ablaye e liman dia ene foti yettude allah juula e rasul kono yettaɓe kamɓe ko kamɓe jaajde ha yaaƴi mamoudou eliman emin ñagonoma allah yo allah suure yo allah dande yo allah reene yo allah duuse e dongal ngal ɗo emin jetta noon dendagal sénégalais ji ɓe ganda eɓe hankkante ɓe jii ko ganduɗa koko ɗum ablaye ilimani jiino haalama ɗo joni oumar sek haali ɗum e yiyande makko joɗɗo woni eɗen poti tottade no feewi daren no feewi e yeeso amen ganden en gona wasɓe so tawi en tardi tan ko enen woni ɓe gonɗa ɓe ɗiggaki malla en miijaki malla en daraki Ablaye Elimane noon ko ɗum o arno hollude en ko tottade no feewi anndude hoore mum anndude indi mum anndude kadi fodde muɗum j'avais dit dans une de mes chansons je vais résumer ça en une petite il est parti un jour au petit matin de sa localité Demet Il est parti à l'aventure sachant qu'il y a une très grande responsabilité qui pèse sur ses épaules, pas seulement pour lui, ni pour sa famille, ni pour sa localité, mais pour toute une communauté, peut-être un pays, ou bien pays. Parce qu'Ablaï Ilimandia était surtout à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, puisqu'il est du Halaïbé. Mansour Seck a chanté d'abord Claudio et je lui dit, avec les qualités que j'ai vues en Ablaye, il faudrait que tu me laisses la chance de chanter une fois de plus un autre Claudio. Mais Ablaye Mandia n'est pas le seul Claudio. Mais sa persévérance, son honnêteté, la façon dont il entreprend l'amitié, la célèbre, le respect qu'il a par rapport au travail qu'il fait. On l'appelait toujours l'homme au grand projet. Ablaï Iliman n'aimait pas qu'on lui lance un défi en lui disant que ça, tu ne peux pas le réaliser. Il n'avait jamais peur de le faire. Mais moi, personnellement, je le remercie parce qu'il m'a associé au plus profond de son rêve. Il venait me voir, il m'expliquait tout, là où il était, ce qu'il voulait faire Et peut-être que c'est en pensant qu'un jour, qu'il partirait et que nous, nous resterions ici et que nous parler de lui pour que les gens puissent comprendre qui était Ablaye Mandia. On a commencé à chanter Kaladio, mais je suis sûr qu'il y aura d'autres chansons sur Kaladio pour que les gens puissent comprendre qu'Ablaye Mandia était un être exceptionnel. Elidia, il y Allah, yo Allah, yo Allah, yo allah wat ha sénégalais ji fof e africain naɓe fof ganda ɗum ɗo ko wona ablaye iliman jeeyi wona ɓesgu makko wona sehilaɓe makko kono ko sénégalais en ɓe jeeyi yo allah wat ha ɗum ɗo waɗa tache d'huile yaha ha saro e partout e aduna o won umminoɓe caggal leydi gaddi haaloyi en ha nangteɗen hen c'est possible enen ne mbaɗen yaha saroyi e nder aduna o ha aduna o foof nangto hen allah waɗ ɗum allah jarama o jarama incha allah